waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di julli ci yontam bi salaa salaam di sant suñ sëriñ Maolana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu taala anhu di ndokkeel xadara bi yëpp di ndokkeel ñooñ adara bi maanaam kalifa yi ci xadara Maolana Cheikh Ibrahim yëpp waaye di ci jiital xalifa toa muy papa Cheikh Maay Ibrahim Niass di ci teg imaamu akbar imaam Cheikh Tidiane Cissé suma papa di ci teg Cheikh Maay Cissé moom itam nga xam ne mooy porte parole bi di ko ñaanal yàlla moom itam yàlla yàggal ko ci suñ kanam di ñaanal yàlla mboolem njabootu Maolana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu taala fi góor ñu ak ñu jigéen ñi parce que Baye amul ay ndaw ñëpp ay mag lañ ay lañ Baye moo ko ñaan yàlla ba yàlla may ko ko di ndokkel mu xaddam yëpp muy ñu nekk Sénégal muy ñu nekk ci diaspora bi di ndokkel itam taalibe yi maanaam fu ñu mën a nekk muy njaboot gi. muy ñu nekk Sénégal ak ñu nekk bitim réew yëpp maa ngi leen di ndokkal ak ñu nekk bi ak mboolem ku nekk ci monde bi yëpp maa ngi lay ndokkal euh, di ndokkal itam waa internet bi ñi nga xam ne bi euh, dañoo ñëw nga xam ne moom moo doon def lii ngeen di def tey euh, te attan ci lool bëgg ci ngóora wax ci Seyna Moussa du yomb maanaam wax ci Seyna musaa du yomb du yomb ndax li tax du yomb dundam gi yëpp daf ko liggéeyal yàlla dafa dekk ndaw ba pare te jox boppam yàlla amul frontière ci pay yàlla bi du yomb pour ma wax ci waaye il faut ma jéem cee wax ndax li tax ma di ci jéem a wax Moussa dafa nekk nit ku am njëriñ ku dégg ndigal Moussa bugg na ma ba nga xam ne soo ma buggee rek moom bugg na la ak foo mën a ne ak noo mën a mel moom bugg na la kon kooku ku jëmm ju noonu suñ ko ñàkkee rek loolu danañ ko jooy mais dañ koy ñaanal yàlla parce que liggéey na lu ko àddina bi yëpp yaakaaree nekk na ndaw musta jaar ci ndaw dundam gi yëpp daf ko def xidma fii nga sukk nii tey moo fi daan sukk daf daan ñëw sax di bàyyi xel jaamu yàlla yi ndax danañ ko xajal waaye su ma ko séenee dañ ko Seydina Moussa dangaa bëgg a introduire mu naa ah, mën a ko ñëwal ndax bëggam rek ak xiram kon kooku kenn la ci njaboot gi nga xam ne dafa demal ñëpp ah Seydina Moussa demal na diine ji demal na tariqa bi demal na faydu bi waaye demal na kullu taalibe maanaam mboolem taalibe baay parce que métier mi mu nekkoon ñëpp la ci jëriñ amul kii Tiwaawan la amul kii Tuubaa la amul kii lii moom fekk soxla nga ko rek te am ci ndigal dafay ñëw liggéeyal la ba rafet te yàlla rek tax soxla wut ci benn dërëm kon Seydina Moussa wax ci moom euh, du yomb xanaa dañ ci wax rek li nga xam ne bii moom lañ fi lañ mun a wax ñi wax ci waaye li ci des jaamu yàlla yóbbu wax nañ ko ndax seedal nañ ko ci pays bii seedal boo xam ne àddina bi yëpp xam nañ ne seedal nañ ko ñëpp seedal nañ ci moom baat bu rafet te loolu jullit bu ne war na koy sàkku te yàlla may na ko Moussa Moussa sang yëpp seedal nañ ko sang yëpp jaale nañ ko sang yëpp def nañ seen yitte ku ci nekk métti lu na ko dama doon wax ma ne dem Moussa gi def ma métti mais bi ma gisee sang yëpp jël ko en charge métti lu ko rek dafa oyof métit bi dafa oyof ku ne xam na ne Moussa dundam gi yëpp yàlla la ko jox kon tey bu équipe bi yëkkati ko waatee di liggéey di liggéey ci liggéey boo xam ne bi lii moo doon mébana mébatam moom constitut bi dem rek bañ a taxaw rek moo nekkoon bugg-buggam moo nekkoon xalaatam moo nekkoon mébatam waaye ndokk sant yàlla bi ma bi nga xamee ne yëgoon na ci yéen ñi nga xam ne yéen la bàyyeekoo si tey ngeen amee ko ci anam bu rafet di wax ne mbokk yi nga xam ne bii ne ñoom ñoo safoo woon Kossy bi di ko dégloo di ko bàyyi xel ñëpp di oote fu nekk naan ana Kossy TV bi ana Kossy damaa waxoon ne Moussa dem na waaye Baye am na Moussa yu bëri yaakaar naa loolu àddina bi yëpp déglu na ko Baye am na Moussa yu bëri te Moussa yii nga xam ne bii ñooy Moussa ma dem Moussa boobu du fi jóg mukk ndax wat na ci jëm yalla ci jëm yalla ji du fi jog nim daan jëriñee nit ñi dana ko jëriñee nit ñi ma nga dalal xelu waa Kossy TV di dalal ñi nga xamne ñoy ñooy soppee Kossy TV te daan ko bayyi xel ci ñu nekk Sénégal ak ñu nekk ci diaspora yëpp na seen xel dal Moussa bayyi na fe ñu mat liñ doon bayyi na ku melni ni Seyna Aliou Gueye mu nekk seen mag mu bayyi fi ay ndaw yu xereñ yo xamne bi buur nañ jëm ci yàlla te sawar nañ pour liggéeyal yàlla sawar nañ pour liggéeyal Kossy bi ci jaami yàlla bi nga xam ne luñ soxla ci pays bi danañ ko jot kon maa ngi dalal xeli mboolem koo xam ne rek soppee Kossy yi nga daan ko bàyyi xel na dara demut dara taxawut lépp a ngi fonk maanaam lépp a ngi dox dara du taxaw incha allah rabbi parce que baay mbiram mi amul tànki gannaaw tànki kanam la am ci kanam rek la jëm causeté bi dana dem ba fu soob yàlla incha allah rabbi kon maa ngi leen di ñaanal yeen équipe bi nga xam ne bi Moussa Fado tey ngeen soog a commencé liggéey bi yal yàlla dimbale leen yal yàlla may leen kàttan ak doole ak mën-mën ak mateeku sëkk yal na ngeen remplacer Moussa ba jooy yi nga xam ne bi moom la jaam yàlla yëpp di jooy musa seen ronq yi ngeen feral ko yaakaar giñ am ci yéen ba causeté bi tànn leen teg len ci kanam aduna bi yop muy kanam askan bi yaakar joju yalla bu tas yana yalla dole len ci anam bu nek yal yalla may len ci katan ak dole lepp lu ngeen sembu yalna na mat yal na ba jeriñ bolem fami bi yop wala njobotu musa yal na euh, nekk loo xam dana law ba aduna bi yop jeriñu ci maa am yaakar ci yéen musa dem na ko siti bu du taxaw constitution bi taxawut de parce que constitution bi bàyyi ko moom waaw lu bàyyi moom nan lay taxawee Moussa delluwaat na ci jëmm jëmm yàlla jëm joge ko woon Moussa Moussa delluwaat na ci jëmm yàlla ji Moussa du fi jokkoon peeg yàllaa ngi am Moussa du fi jog ah kon constitution bi tam du fi jokk parce que constitution bi matériel la ci matériel yi bàyyi yi nga xam ne bii moom lañ koy lëkkalee ci faydu bi te nag ay ndaw yu xereñ ñoo seq Kossy bi bu kenn xalaat ne Kossy bi jàng na sax Kossy bi du daanu parce que ay ndaw yu xereñ ñoo ko seq yu jàng yu ko jàng xam maîtriser seen métier xam liñ amee xam liñ am xam liñ doon xam liñ doon ci pays bi xam seen taxawaay ci pays bi danañ ko liggéey ba mu rafet ba nga xam ne bii ne ñëpp danañ gërëm ba nga xam ne mébatu musa dana egg yal na yàlla fay leen yéen itam Moussa yal na yàlla dëkkale koog sama sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala dëkkale koog Mawlana Cheikh Ibrahima Fall mu ànd ak ngërëmal Baye daayi man ñim fi bàyyi muy njabootam yal na yàlla uutu ko ci njabootam uutu ko ci ñun ñi nga xam ne ñooy ay soppeem uutu ko ci yéen ñi nga xam ne yéen ay naataangoom ay soppeem ay nitam ay àndandooram maa ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla barkeel seen yëngatu ak seen dal Seydou Aliou yow ak équipe bi bootu ci sa gannaaw yëpp nañ góorgóorlu demeet la ñuy def parce que mbiram baay la du mbiram kan mbiram baay la dana gën a ees dana gën a taxaw dana gën a rafet incha allah rabbi parce que bàyyi ko moom ñun duñ ci dara damay wax ne ñun bàyyi ñu moom yéen ñi ciy liggéey bàyyi leen moom causetti bi bàyyi ko moom matériel yëpp bàyyi ko moom kon ñun luñ ci doo ñun duñ ci dara mbir mi mbiram bàyyi la yana na yàlla barkeel barkeel xadara bi yëpp di gërëm ñoom nag parce que demu Moussa bi soppi yëpp taxaw nañ ci ñëpp ñëpp taxaw nañ ci wane nañ ci seen xalaat wane nañ ci seen naqar bokk nañ ko ñun ba naqar bi jeex kon ñu maa ngi ñaanal yàlla soppe yi nga xam ne ñëpp ñi ngi métti lu dem Moussa gii yal yàlla uti leen ci jëmmi Moussa te yal yàlla fayanteeg ñoom fayanteeg pay bi tam parce que ñun pay bi lañ am te pay bi taxaw nañ pay bi dañoo taxaw temm pour coiffer lépp dëgg-dëgg mënu maa fay pay bi yal na yàlla fayal ma pay bi mm. muy xalifa bi muy njabootu xalifa bi muy suma papa imaam muy njabootu imam muy Cheikh Mahi Cissé taxawaayam rafet na Serigne Mor Cissé suñu waajur moom itam taxawaayam rafet na ak kilifa diine yëpp ak mboolem njabootu baay njabootu baay yëpp rek ñëpp seen taxawaay rafet na di wax na asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf Seydina Aliou sukran marhaban